te woon waaye woote gi mu tegoon ko ci li yàlla wax ni la in shakartum la azidannakum waaye da ngay xoole ca beneen côté ba sunu borom wax ni wala in kafartum inna azabi la shadid mu xam ni nag yàlla ginnaaw moom moo digée ni su ngeen ma santee ma dolli leen te moom yiw wi nga xamante ni yàlla defal na ko ko wala yiw wi nga xamante ni dagaan na ko sunu borom ba borom may ko ko nekkul loo xamante ni daf ko bëgg a jëriñoo moom dong ndax nekkul loo xamante ni daf ko bëgg a jëriñoo ak njabootam gi nga xamante ni moom la ñuy tuddee njabootu deret te moom wax dëgg yàlla ci biir mbindam mi ngi wax ni jaay naa deret jooju nga xamante ni njaboot googu nga xam ni njabootu deret lañ jaay naa ko waaye lépp laa maa ngi ko jëndee cofeelu yonent bi alal jaay naa ko maa ngi ko jëndee cofeelu yonent bi sama dund gépp maa ngi ko jëndee cofeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nu mu meloon ci sayyiduna muhammad am na koo xamante ni boo mbaa nga def yitte sa diggante ak moom sa diggante ak sa borom rattax parce que yàlla sunu borom moom moo wax ni su ngeen bëggee man ak yéen ñu déggoo da ngeen di fexe ba topp yonent bi sallallahu alayhi sallam su ngeen bëggee man yàlla ma nekk seenu soppe da ngeen di fexe ba topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te soppe googu kat ni ko yàlla tëggee mooy man ma su ngeen bëggee man ma sopp leen dangeen di topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni su ngeen ko defee yuhibbukum allahu su ngeen bëggee yàlla ànd ak yéen su ngeen bëggee yàlla sopp leen da ngeen di sopp sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgg yàlla mooy dëgg-dëgg bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax eggewuñu ci sunu boroom ndax nit digganteem ak sunu boroom day rattax lool Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum day wax ni diggante nit ak boroomam dafa xaw a rattax mu ni faw nga wut koo ci doxale mu ñagasal la ko waaye ki nga ciy doxale nag même ki ci ëpp ki doole mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mag ñin yëg ni yonent jëmm ji nga xamante ni sunu borom yàlla kenn rek a ko ñor mooy waa jooju di muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ku dul yont yàlla muhammad bu la yont yàlla muhammad ñorul ñoroo yàlla Serigne Touba yëg ni nag comme yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek a ko ñor mu ni man daal benn métier laay am te métier moomu kenn rek laa koy xëyal te ki may xëyal di ko gontal mooy muhammad rasulillahi sama dund gi ma ma koy partagé ni ma koy partagé mooy ñaari xaaj laa koy def ñaari xaaj yooyu nag xaaj bu ci nekk dama koy delloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que yàlla moo wax ni su fekkente ni da nga da da nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn yoon yonent sallallahu alayhi wa sallam moom sunu borom dana julli ci yow fukki yoon nga julli ci yonent bi fukki yoon yàlla dana julli ci yow téemé juróom fukki yoon nga julli ci yonent bi juróom fukki yoon yàlla julli ci yow téeméeri yoon nga julli ci yonent bi téeméer yàlla julli ci yow junni waaye soo jullee ci yonent bi junni sa yàpp yaram xaraam na safara am nga jot ci euh, nekk maanaam njot nga sa bopp ci safara damay wax ni maanaam loolu recherche gënu ko rëy li nga xamante ni mag ñi fexe nañ ba samp ko ci te ko fi te Serigne Touba Khadim Rasoul def ci liggéey bu am solo te mooy xoolal diggante ba nga xamante ni dundam gépp départagé na ko maanaam xaajale na ko xaajale gi mooy mu def ko ñaari juróom-benn juróom-benn bu njëkk bi mu ngi ciy tàgg yonti yàlla Muhammad fu mu toll mooy 6 mois ñaari 6 mois la boo ko boolee douze la lay muy année bi yëpp. Serigne Touba Khadim Rasoul fexe ba nee na juróom benn weer yi dama ciy tàgg yonent bi fu ma toll mooy maa ngi bind di wax ci yonent yàlla Muhammad maa ngi bàkk rasulillahi ci xalimaam ci làmmiñam di tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yeneen juróom benn weer yi nag ma fexe ba di ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi juróom benn yi mu doon tàgg yonent bi ci biir juróom benn yooyu ay salaatu ala nabi yu dul jeex moo ci nekk mooy juróom benn weer yooyu léegi yow mi nga xamante ni nag yow yaa jot ci téere boobu yow mi nga xamante ni xasida boobu yow saa yoo ko dee jàng mi ngi lay permetre ngay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te façon bi ngay jullee ci yonent bi mën ngay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay at te doo rendre compte ni yaa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay jàpp ni ay xasaayit rek ngay jàng ci yow mi nga xamante ni ci jàng ko rek nga yem waaye moom mi ngi la dugalal ci biir xasaayit yi julli gi ngay julli ci yonent bi yàlla di la fay yoolu kuy tagg yonent bi waaye di la fay yoolu kuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni lay fayee yoolu kuy tagg ci yonent bi kuy tagg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la lay fayee yoolu kuy julli ci yonent bi te loolu lépp li ko indi ak li la ko may du dara lenn rek moo la ko may mooy li nga xamante ne yonent bi sallallahu li nga xamante ni Serigne Touba Khadim Rasoul bind na ko te bind gi mu jël base bi nga xamante ni moom la ñu soxla te base boobu dara ëpp ci doole mooy mu cës cëslaay li nekk yonent yàlla nekk nekk sunu borom tabaraka wa taala ndax ku xool jumaam ju ji ku xool jumaa ju mag ji nga xam ni xàll na ko fi ngir jaami yàlla yi mu nekk néegub yàlla mu fi sampal sunu borom jaami yàlla yi di ci jaamu seen borom waaye du ñu yem ci di ci jaamu seen borom ki yàlla amul ku dul moom ñu ko ciy bàkk ci biir muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yéen ñëpp dégg ngeen njabootam gu tedd gi ñuy wax bis bu nekk ni bi muy dem moom Serigne Touba Xaadimu Rasuul ndax kenn ku nekk booy wuyu ji sunu borom di nga fi bàyyi mébét ku dee rek bàyyi mébét waaye Serigne Touba dafa amoon ñetti mébét yoo xam ni moo nekkoon mébétam yi gën a rëy muy muy muy bi njëkk nekkoon barab boo xamante ni barab bu ñuy jànge bu ak di jàngale la xam-xam rek di fa ball bu njëkk bi barab boo xam ni fa la ñuy jaamoo yàlla di fa jut jaamu sunu borom di fa jaamu euh, sunu borom di fa bàkk yàlla di fa bàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy jumaam ju réy ñaareel ba di barab boo xamante ñetteel ba di barab boo xamante ni euh, bu bu bu nit fu nit mën a jóge ci àdduna ak lu mu sori sori sori bu ñëwee ca barab booba dana fa fekk jumtukaay yi nga xamante ni moom lay sàkkoo xam-xam ak jumtukaay yi nga xamante ni moom lay jàllalee xam-xam te ñett yooyu yëpp benn bu ci nekk njabootam gi taxaw nanu ba réaliser ko reebam yooyu nga xamante ni moom la amoon moom la amoon fii ci dëkkam bii di tuubaa jumaa jaa ngi nii nekk jumaa joo xamante ni buñ doon wër ci Afrique bokk na ci jumaa yi ci gën a rëy bokk ci jumaa yi ci gën a màgg bokk ci jumaa yi ci gën a yaatu bokk ci jumaa yi ci gën a taaru yàlla dogal jabootam gi taxaw ci ba sampal ko ko benn ci ay mébétam beneen bi mooy daaray kaamil mi ngi nii nga xamante ni euh, comme ni ko suñu wayjur boobu jàngalee nga xam ni tey ji barab la boo xamante ni lépp loo xamante ni yow yaa ko fa war a yow yaa ko fa war a war nga ko xam wala war nga ko jàng wala war nga ko dégg boo dikkee foofa dañ la koy jàngal lépp loo xamante ni war nga ko gëstu muy bépp xeetu baax boo war a def ci bépp téere bu mu mën a doon maanaam bépp matière bu mu mën a doon ña ngi ko fa dajale foofu ci daaree kaamil soo dikkee ñu mën la wan matière bu nekk soo ko bëggee xam fi ngay jaar ba xam ko matière bu nekk soo ko bëggee gëstu fi ngay jaar ba gëstu ko te loolu liggéey bu ama ama la ndax tey ñi ko doon saytu ak ñi ci doon sonn xëy na njariñ li ci ëpp mooy yiw wi leen ci yàllay fay waaye li nga xamante ni moom mooy base ba dëgg jaam ñi ñoo koy jariñoo tey yow yaay soxla gëstu nga dem ñu ubbil la nga dugg ci biir gëstu maanaam def baax bi nga bëgg a def li nga ci li nga soxla yëpp nga am ko ci soo fa jógee yaay dem jàllale ji waaye yow it yaay jariñoo soo fa jugee yaay dem jàllale ji waaye yow yow yow sa sa sa sa avantage lay doon te loolu li la koy may li la ko promettre ak li la ko may du dara lu dul bàyyil nañ la barab boo xam ne ndap yi nga soxla jumtukaay yi nga soxla yëpp moo nga fa mu fexe it ba mu fexe ba li nga xamante ni moom mooy barabu jàngukaay boobu ah sëtam bu tedd bi di Serigne Mountakha Bachirou Mbacké ñu ñaanal ko moom it yàlla yàlla wéral ko yàlla yàlla guddal fanam yal na yàlla dëgëral ko ba naal yi nga xamante ni baay ak maam yi naal nan ko yàlla jox ko kartan gu mu ko mottalee wax dëgg yàlla mu taxawal université bu mag boobu nga xamante ni képp koo xamante ni dugg nga fa di fa jànge mën nga fa jànge ba am sa licence mën nga fa jànge ba am doctorat mën nga fa jànge xeetu fànni xam-xam yëpp ñu fa yéene di ko fa jàngale te loolu it am am réew su fekkente ni bëgg nañu bëgg nañ leen a jariñ dañuy fexe ba ba ba xamal leen waaw parce que xam-xam mooy base bi nga xamante ni ci la nit ki di dëgg pour li mu bëgg mu mën koo am xam nga bu dee wax moom Serigne Touba Xaadimu Rasul naan ni ni ni ni ni saxaaba yi jihaatee ni gars yi àndoon ak rasulillah yi jihaatee noonu laa jihaatee mais jihaat gi ñu jihaat ñoom ak jihaat gi may jihaat du benn ñoom la ñu tombeel la ñu def man xaadim li ma tombeel laay def li nga tombeel mooy lan mu ni maa ngi jihaad waaye sama jihaad maa ngi koy teg ci xam-xam inni ujaahidu bil ulumi wa tuqaa dinaa jihaad mais jihaad gi nag maa ngi koy def ci xam-xam waaye boole ko ak ragal yàlla gis nga xam-xam bu la gëtanul yóbbu la ci ragal yàlla da lay sànq li tax mu lay sànq mooy maanaam al alkande la lay jural mais Serigne Touba fexe na ba xam-xam boobu nga xamante ni mi ngi woon ci moom mu di ko transmettre mag ñi ko waroon waaye mu laltaayee ko ragal yàlla parce que nit kenn li nga koy jàngal daf ko daf ko war di gis ci yow xam nga ki yàlla booleel mu war la yóbbu ci yàlla te xamul yoon wa du la yóbbu ki yàlla booleel mu war la yóbbu ci yàlla te gënu ko gënu laa ragal yàlla kooku mënu laa yóbbu yàlla ci yàlla ki yàlla booleel mu war la tette nga naan. ci leer yiy bal ci xadratul ilahiya kooku su la gën gënta xam yoon wi mënulaa laa yóbbu mooy li olof di wax ni ku dul gis du jiite aw yoon ndax dañ koy womma waaye moom du wommataate loolu nag day valable ci ki nga xamante ni nitu yàlla la war a yóbbu ki nga xamante ni woote woona nitu yàlla war a yóbbu jaam ñi ci yàlla Serigne Touba Khadim Rasoul jàpp fondation yi ko ñaar yooyu mooy xam-xam waaye mu ànd ak ragal yàlla nga déggee ci ni nit lu mën a xam ak lu mën a jàng su fekkente ni ragal yàlla àndut ak moom njàng ma du ko jariñ nit lu mën a xam ak lu mën a jàng su fekkente ni ragal yàlla àndu ci njàng ma du ko jural du am benn résultat mu ngi ko jural parce que li muy jariñ mooy nga ragal yàlla parce que nga xam yàlla ci nga koy ragal soo ko xamee di nga ko ragal parce que boo ko xamee di nga xam ni ki ngay jëflanteel dara safu ko yàlla dara intéressé wu ko yàlla lenn rek a ko ñor mooy muhammadu rasulillahi te it amul lu diis ci kanamu sunu borom déedéet yàlla amul lu diis ci kanamam koo xam ni Moustapha mi mu wax ni moo ma gënal ci jaam ñi mais yàlla su ko neexoon mu bàyyi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent di dund di dund ba jamono yi ñun ñëpp ñu yëg ni yonent mi ngi dund yàlla su ko neexoon mu bàyyi fi Moustapha du màgget yàlla su ko neexoon mu bàyyi fi Moustapha du feebar yàlla su ko neexoon mu bàyyi fi Moustapha du faat waaye lu tax yàlla wax ko ni ko sa heure dem jot na Moustapha tànn dem di parce que yàlla am na bind bu mu ñuy jox te mag nit ñu tedd nit ñi ko waroon yëpp moom yonent yàlla Muhammad yàlla di leen jël benn par benn dikk ci taabiya dikk ci taabiya taabiya dikk ci awliyaaw yi dikk ci sëriñ si dikk ci xutbu yi kenn ku nekk sunu boroom jaar ak yow foofu loola li nga cay déggee mooy yàlla mi ngi lay wan yoon wi nga war a aw pour ñëw ci moom Serigne Touba nag xàll yoon woowu waaye mu jaare ko ci porte bi port bi nga xamante ni moo gën a gaaw mooy fexe rek nit ñi xam gëdd sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fexe it nit ñi xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa xam xaqiqatan kan mooy Muhammadu rasulillahi lu difficile la ndax du eh, eh, eh, cër moo fay yegg pour nit moom mu wax la boppam moom sax moo lay wax boppam waaye mu fexe ba cofeel gi nga xamante ni moom moo dox diggante jaam yi ak sunu ak yonent bi mu fexe ba jëmbat ko suuxat ko ba gide la walla ni la kenn rek nga war a nga war a teg bët kenn rek nga war a roy kenn rek nga war a topp mooy yont yàlla muhammad képp koo xam ni yaa ngi koy topp di ko roy te royul yonent bi toppul yonent bi Serigne Touba Xaadim Rasul wan la ni kooku waruloo ko topp ki nga war a topp war ko roy Xaadim Rasul ne mooy ki topp yont yàlla muhammad kii roy yont yàlla muhammad damay wax ni turam woowu rek dafa doyoon sëkk ci dalil turam woowu rek dafa doyoon sëkk ci dalil noo tudd mu mu jël turam soppi ko tuddee ko xaddimu rasul mooy ki nga xamante ni day xëyal yont yàlla muhammad te xoolal xam nga am na am na koo xamante ni bu xëyee day wàcc mais Serigne Touba dafa wax ni xëyam amul wàcc waaw xëyam amul wàcc damay xëyal yonent bi aw ma wàcc aw amul heure wàcc da ngay xëy rek journée continue lay doon maanaam toujours yaa ngi ci yont yàlla muhammad moo tax mu ni liggéey bi may liggéeyal yont yàlla muhammad liggéey la boo xam ni amul wàcc moo tax mu nekk xaddimu rasul day liggéey liggéey boo xam ni amul wàcce mooy liggéey bi du am benn arrêt toujours maa ngi liggéeyal yont yàlla muhammad xam nga ki wax boobu di ki def boobu boobu différence wan la ni maa wan na la ni maa ngi liggéeyal yonent bi fu ma toll waaw wan na la ni maa ngi liggéeyal yonent bi fu ma toll mooy aw ma wàcce waaye baasu liggéeyal yonti yàlla Muhammad Serigne Touba ne mooy nga mooy xam-xam ndax loo amul xam-xam doo ko mën a liggéeyal xam-xam bu wér ngay am pour mën a liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu wax moom Serigne Touba Xaadimu Rasuul ni maa ngi liggéeyal yonent bi waaye liggéeyal yonti yàlla Muhammad googu ma jiital ci xam-xam xam-xam boobu nag ma jiital ci ci lay fexe ba tabax ci ay doomi aadama yoo xam ni ëllëg fu liggéey bi mën a toll doomi aadama yooyu ñoom ñooy taxawal liggéeyal boobu tey yoo loolu yàlla defal na ko ci ndab ci réussir te réussir na ko mooy lépp lu mu bëgg tàllal ko rek ñoom ñëpp ñëpp ñu jug jàpp ci parce que dafa am fu mu bëgg a dem loolu nag fondation bi nga xamante ni fa lañ ko war a defee te mooy mu jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax jumaa yonent yàlla Muhammad mooy jàkka ji nga xamante ni ci la yonent bi defoon tribunal fa lañ daan attee jumaa yonent yàlla Muhammad fa lañ daan rek takkee sëy yi jumaa yonent yàlla Muhammad fa lañ daan waxtaanee ci mbokk jumaa yonent yàlla Muhammad fa lañ daan defaree lépp Serigne Touba nag ni kon maanaam fondation bi day nekk jumaa jooju mu taxawal ju mu ñaan yàlla mu defal ko barab boobu di jumaay juri ji yàlla may ko ko ci kartanu sunu boroom ak ndimbalu yonent bi waaye taxawaayu ay njabootam ba taaro taaroo nii mu taaroo mel nii mu mel jumaa jooju nag la cay xew ak la maanaam ak doxalin ba cay am mu fexe ba dëppale ko ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag nekk njàngale mu rëy moo xamante ni suñu sëriñ suñu sang bu tedd boobu di sëriñ Saalih Mbàkke yal na yàlla dolli leeram di doomu sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul waaye def liggéey bu am solo ci ëttu ma ëttu baayam bi sëriñ Saalih moomu joxoon ndigal ay ndaw ngir ñu àndandoo saytu liggéey boobu waaye saytu ko ci xam-xam saytu ci xam-xam boobu woo waraloon ñu indi tëralin bi ñu ci tëralin ci wàllu imaama gi waaye tëralin bi ñu ci tëralin ci doxalinu jumaa ji waaye tëralin bi ñu ci tëralin ci dëppale ko ak sunna ba nga xamante ni ñiy jam tasawuf bu ñu dikkee fii du ñu am lu ñu jamee tasawuf loolu nag il faut que bala ñu sori ci waxtaan wi dañ ciy essayer rek dem ànd ceeg suñu benn suñu benn mbokk mu ñu ko wax sëñ Maxtaar moom mu nekk ci cellule de communication bi yor li nga xam nekk ci jumaa ji bokk ci ñuy saytu liggéey bi mu indil ñu ci ay leeral ci ni nga xamante ni noonu la ñuy tëralee liggéey boobu ni nga xamante ni noonu la ñuy doxalee liggéey boobu ci wàllu imaama gi nga xamante ni dañuy fal imaama yi dañuy xool niñ koy doxalee noonu noonu ñu koy fale nag noonu ñuy doxalee imaama yi ñu dikk ànd ceeg Serigne Makhtar mu defal ñu mu defal ñu mu defal ci tuuti synthèse rek ndax am na ñoo xam ni li ñu jàpp ak li am du doon benn parce que li ñuy jàpp toujours du ñu yegg ca source ba du ñu yegg ca source ba pour jëlee fa information bi ñu soxla li ñu kon ñoo ngi dem ànd ak Serigne Makhtar ci loolu nga xamante ni moom mooy euh, synthèse boobu bu ñuy defal bismillah kon ñu déglu Serigne Makhtar. fii moom nañu tànne moom ci ab juddu ci la bokk xam-xam bu leer ci la bokk sàmm gu leer nañ ci la bokk xam sa diina trop ci la bokk ñoo leen tànne fii noddukat yi am san xuma am na jaañ am si waaye ñëpp njaboot Sëñ Tuubaa gi la tànnin bi nag xalifa am na ci am na ci wàll waaye nag wàll du dëpp du génn nag sariya du génn tamit ku man ndax fii nag ko ne fi nag ñu sant Mbàkke jëtt na fi sant Bousso jëtt na fi kon firiwul ne eh, dañuy taam ab famille rek leen di diitloo loolu li ñu ko wax nag waaye demul noonu daanaka mais nag mais nag yàlla dafa ne day dogal tamit ab sëy boo xam ne tamit jàng ak jàng ñor leen mooy seen naturel tey suñu taal suñu taal doy woo leen ci yenn yi ah te amaana nag dafa dafa dafa rëy dafa rëy moo tax amaana da koy contrôlé waaye firiwul ne nag ne ñoom da ngay sant nangam rek soo ko mën a jiit déedéet danga koy man man gu leer naññ mat ko ndax nag imaam nag ndawut nag waaw ndawut ndawut loolu mooy mooy moo jëm ci loolu macha allah félicitation bi fii nga xamante ni moom mooy euh, jumaay euh, yàlla ji nga xamante ni Serigne Touba Khadim Rasoul euh, defal na ko sunu boroom ci càkkutéefam wa jumaa ji yegg fii mu yegg mu nekk wax joo xamante ni nag ju am solo la te mooy wane ni imaama gi ci jumaa ji du caage ni aw askan rek lañu ko jagleel du caage ni ab famille rek lañu ko jagleel waaye imaama gi dafay nekk nga mat ko mën ko maanaam da koy mat ci critères yi ñu soxla da nga koy mën ci critères yi ñu soxla yàlla sax bi muy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan ko waxal jaam ñi bu ñu ma soxlaa nañu ma nañu ma maam soriwu ma leen ku leen jege la dafa wax ni soo amee critères yi nga war a am soo ma woowee man sa boroom ma wuyu la waaw wa ida sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu daawata daa'i waaye isa daani borom xam-xam yëpp tënk ni xarfu charte la te ñëpp d'accord ci isa jooju du caagee ni ku jóg rek boo woowee yàlla mu wuyu la maanaam ku woo yàlla yàlla dégg na la waaye du ñëpp lay wuyu waaw du ñëpp lay déglu kon kon am na critères yoo xam ni moom ngay am pour boo waxeek sunu boroom sunu boroom dégg la déglu la critères yooyu nag noonu la valable ci imaama gi dégg nga ni ko sëñ Maxtaar waxee maanaam pour nga nekk imaam ci jumaa ji du caagee ni daa am sant wooy am rek pour nekk ci jumaa ji waaye nag def na ci leeral bu am solo day am askan woo xam ni wala famille boo xam ni wala cent goo xamante ni am ñooña xam-xam rek day nekk seen métier dañuy nekk ñu bëgg xam-xam dëkk ci xam-xam di ko gëstu te di ko dund fu ñu toll léegi nag mën nay tombe à chaque fois rek bu ñuy tànn imaama yi moo ñoom ñu cay ñu cay bokk baa ñu cay jiitu waaw loolu nag dàq dëppoowul dégg nga sant yim indi yëpp ne benn bu nekk mi ngi ci jumaa ji di fi jiite waaw te loola day wane ni liggéey bi xaadim rasul doon liggéey làmbi na parce que li mu doon liggéey liggéeyu ko pour ñi sant Mbàkke rek li mu doon liggéey liggéeyu ko pour ku sant Buso rek li mu doon liggéey liggéeyu ko pour askanam rek ci wàllu deret waaye julliti yàlla yëpp jaami yàlla yëpp coono bu mu daj ñoom ñoo taxoon mu daj ko liggéey bu mu def ñoom ñoo taxoon mu def ko li mu doon def yëpp pour jaami yàlla yi la li mu doon def yëpp da koy def def da ko def ngir eggale liggéeyu sunu boroom bi nga xamante ni moom la sant yonent yàlla Muhammad mu dugal ci loxoom ci liggéey boobu nga xamante ni yàlla sant na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man de waxuma sax waxuma sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye boo ko déggee ma ngay wax ci mi ngi wax ci biir bindam yi naan man waxuma sax yonent bi waaye saxaaba yi waroon yonent bi rek buñ bëggee jëwrin ci tool man la ñuy jël si ndax maay seen jëwrin waaw mu ni ashaabu rasulillahi ñoom saxaaba yi yonent bi mu ni innii man mii de di wax ak yéen xadimuum maay seen maanaam ni ma nekkee jëwrinu yonent yàlla muhammad noonu laa nekkee seen jëwrin ñoom lu tax mu ni parce que maanaam saxaaba yi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkente ni bëgg nga yont yàlla muhammad te mu nekk lu sincère ci yow xaadim rasul nee faw nga boole ci saxaabaam yooyu nga xamante ni ñooy saxaaba yi yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ngi wax sax foofu ni ah, mënuloo mënuloo mënuloo tagg yonent bi mënuloo bakk yonent bi mënuloo kañ yonent bi te bàyyi fi saxaaba bi Serigne Touba wax na ni su fekkente ni yaa ngi tagg yonent yàlla Muhammad su fekkente ni yaa ngi bakk yonent yàlla Muhammad te boole woo ci ay saxaabaam mu wax ne tagg gi ngay tagg yont yàlla muhammad te boole woo ci ay saxaabaam xaadimu rasul nee na day mel ni kafe goo defar ba mu pare te suukaroo ko wala togg gu amul ah, gu amul xorom ayaa xaadimal muxtaari laa tansa saxbahu ndax fa man yamsaxuhu fal matxu matxul muqatta'u waaw ayaa xaadimal muxtaari yow mi tagg tànneefu giir hachim ba te mooy muhammadu rasulillahi yow miy tagg tànneefu giir hachim ba te mooy sayduna muhammad mu ni laa tan sa saxaabahu bul fàtte mukk saxaabaam yi waaw bul maanaam bul desal ginnaaw benn yoon saxaaba yi ti yàlla Muhammad bu leen desal ginnaaw de lu tax bu leen desal ginnaaw mu ni képp ku leen desal ginnaaw waaw fal fa man yam sax fal matxu matxul muqatta u képp ku leen desal ginnaaw Serigne Touba nee na tagg gi ngay tagg yoon yonti yàlla Muhammad day mel ni dañ koo dagg dañ koo wàññi parce que nee na tagg yonti yàlla Muhammad faw nga boole ci nag saxaabaam yooyu moo tax mu ni boo bu fekkente ni dangay ngay tagg yonent bi Serigne Touba ne te boole woo ci saxaabaam yi tagg gi ngay tagg yonti yàlla Muhammad day mel ni daa am lu ci manqué moo tax mu ne fal matxu matxul muqatta'u mu jiital nag ki nga xamante ni moom xaadim rasul moom moo nekk buñ doon tudd xaritu yonti yàlla Muhammad moom la ñuy tudd parce que yéen ñëpp jàng ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu tëddee ci lalu sukuraat laata muy génn àdduna moom yonent bi waxoon na ni su fekkoon damay tànn xarit man rasulillahi Babacar Saddiq laay tànn def ko sama xarit su fekkoon damay tànn xarit Ababacar Saddiq laay tànn def ko sama xarit mu ne waaye ñi ma am ñëpp ay mbokki lislaam lañ parce que bëggul fli moom yonent bi bëggul frustré kenn parce que ku ñëpp di daw di la wut si doo tànn kenn yow di ko wuti waaw ku ñëpp di daw di la wut si yow doo tànn kenn di ko wuti loolu la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale waaye xoolal Serigne Touba tartib boobu mu def moom it yëg ni ginnaaw yonent yàlla Muhammad ki toog ci ginnaawam wuutu rasulillahi ba liggéey bi mu bi yonent bi tàmbali woon moom mu def ca kemtalaayu kàttanam Serigne Touba wax ni kooka nag mooy Aboubacar moo tax mu ni Abou Bikri ni Siddiq zu siddiqi wal wooku rafiqu nabiy al Mustafa xaara an ba mu ni mu ni nag day jiital ki yàlla jiital waaw ndax benn boo tudd ci yonent bi ñaareel ba Babacar Saddiq lay doon waaw mu ni Aboubacar Saddiq moomu nga xamante ni moo àndoon ak yonent bi ci sincérité maanaam ci sincérité la àndee woon ak Sayyiduna Muhammad ndax dëggu gu Babacar Saddiq dëggu woon ci xaritoom ak rasulillahi dëggu gu Babacar Saddiq dëggu woon ci mission wam ak yonent yàlla Muhammad dëggu gu Babacar Sadiq dëggu woon ci liggéey bi rasulillahi bàyyi ci loxoom waaw yamul ci dëggu gi waaye Serigne Touba nee na wal wafa dafa matale kóllëre gi moom Babacar Sadiq ku matale kóllëre digganteem ak yot yàlla Muhammad la Babacar du ci àndam ak rasulillahi te kat keroog bi nga xamante ni yonent mi ngi gàddaay ànd ak Babacar Sadiq mu ni bi ñu duggee bi ñu bi yeggee ba fu ñu war a dalloo maanaam fi ñu war a noppaloo mooy bi ñu duggee ci xur woowu te mooy xuntu moomu ka ko fa wéttali mooy Babacar Sadiq te foofa Babacar dafa daj coono bu nekk pour yont yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am stabilité bi mu bëgg ndax booba Moustapha sonn na te Babacar it sonn na waaye Babacar yëg na ni mission bi ci loosu rasulillahi la gàllu moo tax mu gar li mu ngar dajjoo dugg ci biir xunt bi laataa Moustapha di dugg xool turu yi nekk ci xunt bi fenn fu nekk Babacar jël benn benn benn benn benn morceau ñuux ko fa yi mu jël carton euh, këyit yu mu fa fe ñuux ko fa yi mu dagg ci ñax yi lem ko ba mu kii mu ñuux ko fa ndax bëggul dara luy bëtt foofu di dugg si ci biir bi mu amatulee lu mu ñuux mu summi yére bi mu soloon daggate ko di ko di ko fàttee turu yi summi yére bi mu soloon daggate ko moom Babacar Sadiq di ko fattee turu yi waaw turu bu nekk mu fatt ko turu bu nekk mu fatt ko bi mu fattee turu yëpp ba mu mat mu dese ko benn turu comme amul lu mu fàttee turu bi mu jël tànkam moom Babacar Sadiq sës ko ca turu ba léegi nag tànkam boobu mu sës ca turu ba nekkee ja nekkee jaan moo fa nekk fi mu sës tànk bi jaan ji di ko matt moo tax. ñu euh, euh, léeg-léeg sax ñu wax la ni saxaaba yi yont yàlla muhammadi sallallahu alayhi wa sallam mennum Babacar Saddiq lañ ci rayul fekk Babacar Saddiq moomu sax dañ ko rey fekk Babacar moomu sax dañu ko rey loolu li nga ciy dégge mooy kenn mënta liggéeyal yont yàlla muhammad te doo daj coono mënul nekk kenn mënta liggéeyal yonent bi te doo daj coono Babacar ginnaaw yàlla dogalam bi ak eh, maanaam jaan jooju ko mattoon ci xuntu moomu la ko yóbbu àllaaxira jaan jooju la parce que jaan ji wax na Moustapha ni ko ku ma mës a màtt faatu nga yonent dagg ci kaalaam jox Babacar raay ko ci lugg ko ni ko manit ku ma mës a lugg wér nga yàlla dëggal waxi jaan ji waaye dëggal waxi Muhammadu Rasulillahi mooy bi Babacar waree faatu kaala ga la fàtte ca kër ga ca fam aye woon histoire boobu moom moo tax ñàkk jotaat ci kaala googu looloo waral Babacar Sadiq faatu kon moom it dañu ko rey ñi ci des ñëpp Ousmane këram lañu ko fekk rey ko xar maanaam dóor ko jaasi ci ndaal bopp li mu deret ji sotteeku ci kaamilu alquran bi Omar ibnul Xattaab ci minbar bi lañu ko fekk rey ko Seydina Ali ibn Abi Talib dañu ko kar rey ko kenn ku nekk dañu laa rey ñoom saxaaba yooyu mais xoolal Serigne Touba Xaadimu Rasul ni moom damay liggéeyal yonent bi damay liggéeyal saxaaba yont yonent yàlla Muhammad moo tax coono bi mu daj mu daj ko moom it waaw te képp koo xamante ni donn nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xamante ni bëgg nga bokk ci ñu donn yonent bi wala ngay liggéey ngir nono yonent yàlla Muhammad boobu sax faw nga daj coono bu ni toll ndax moo lay yu indil martaba mi nga soxla looloo waral coono bi mu daj ci tukki coono bi mu daj li ñu ko teg yëpp waaye toujours rek muy muy résister toujours muy résister parce que booba xam na li muy def te xam na ki mu koy defal te xam na ni jar na ko xam na li muy def xam na ki mu koy defal te xam na ni jar na ko lu tax mu ne parce que yamut ak kenn moom yonent yàlla Muhammad tolloowul ak kenn moom yonent yàlla Muhammad bokkut ak kenn niveau moom yonent yàlla Muhammad li nit ñi di wër bëgg ko te soxla ko muy gën te gën googu yàlla mi ngi ko dénk muhammadu rasulillahi Serigne Touba xam ni comme gën ci loxol yonent bi la nekk gëne ci loxol yonent bi la nekk mbaax ci loxol yonent bi la nekk teraanga ci loxol yonent bi la nekk tabe ci loxol yonent bi la nekk lépp loo gis ci àdduna yàlla nga ko teg ci loxol yonent bi Serigne Touba ni kon kooku rek lañu ñu war a sonnal kooku rek lañu ñu a daj coono ci moom kooku rek la ñu war a fexe ba li ñu bëgg moom ñu amee ko ci moom ba xam li xew xam ni li ñuy wër mi ngi ci loxol yonent bi kaay leen ma wan leen li ngeen soxla kan moo ko yor ñu ne xaadim rasul li ñu soxla kan moo ko yor mu ne ki tëdd madinatul munawara li gaa yi wër yëpp yonent yàlla muhammad a ko yor Serigne Touba ne raw na leen moom Moustapha waaye raw gim leen raw xaadim rasul ne raw leen rek yem ci da leen a raw ba pare geen di te nag ngir bëgg raw te su ngeen bëggee raw ki raw ngeen di fekki mooy muhammadu rasulillahi raamal wara nay la fadlin musri ayna lahu wal fadlu inda rasulillahi xarra ndakaaru nit ñi ñi ngi njëkkalante nit ñi ñi ngi xëccoo nit ñi ñi ngi buuxante nit ñi kenn ku nekk yaa ngi daw di dàq lan ngay dàq Serigne Touba ni ngëneel rek la ñuy dàqante de lan ngay dàq Xaadim Rasul ni mbaax rek la ñuy dàqante de lan ngay dàq Serigne Touba ne di ñuy dàqante mooy kenn ku nekk danga bëgg mbaax bëgg a gën waaye Xaadim Rasul ne ginnaaw xamu leen fa ngëneel nekk xamu leen fa mbaax nekk kaay leen ma wan leen fan la mbaax nekk kaay leen ma wan leen fan la ngëneel nekk fi ngëneel nekk mbaax nekk fa mooy yonent yàlla Muhammad nekk su ngeen bëggee gën da ngeen di dem ci yonent bi su ngeen bëggee mbaax da ngeen di dem ci yonent bi mu ni gis naa nag nit ñi njëkkalante di wut baax te mu ni wal fadlu nag inda rasulillahi xaraaru mbaax daa dem ba kër rasulillahi mu tax mu taxaw fa ngëneel daa dem ba kër yonent yàlla Muhammad mu taxaw fa gën daa dem ba kër yonent yàlla Muhammad mu taxaw fa kon moom Moustapha li nga bëgg yépp soo ci bëggee jot da ngay dem ci barabu yonent yàlla Muhammad nga jot ci coow liggéey dégg riir meeg daw daw songu geeg kenn ku nekk boo gisee egg suuf ci summi mbaxana ci summi ay dàll joxe loxo ngir barke xaadimu rasul te xaadimu rasul ne loolu lépp maa ngi ko jëlee ci barke yonent yàlla Muhammad parce que léppam léppam daf ko jël dugal ko ci ci ci ci ci ci gaalu yonente bi léppam daf ko jël dugal ko ci liggéeyal yonent yàlla Muhammad looloo tax yàlla fayee ko li mu ko fayee mooy gis nga soo amul sago ci yonent bi ku ñëw pour nga yóbbu ko ci yonent bi mën naa ñàkk sago ci yow parce que ni nga mel ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moom lay delloo jaam ni ci yow moo tax liggéey boobu nag mu doon liggéey dem ci ba ba ba ba daj ci coono bi mu ci daj yàlla defal ko ci ndam yàlla defal ko ci ndam lu rëy te ndam li mooy yàlla fe yàlla defal na ko ci ndamul mu bokk ci ñi nga xamante ni tey turam foo ko tuddee da nga cay teg mooy jëwrinu sayyiduna muhammad xaadimu rasul bokk gi mu ci bokk nag moom Serigne Touba yitte gi mu ci def liggéey bi mu ci def du pour moom dong moo tax mu wax ni la ma wuti woon am naa ko waaye bi ma ko amee indi naa ko bi ma ko indee tasaare naa ko waaw wesaare naa ko la ma wuti woon am naa ko bi ma ko amee indi naa ko bi ma ko indee tasaare naa ko te xaar te tey boo amee boo amee boo amee lu positif am nga lu négatif mais yàlla sutural ko ba indiwul dara lu négatif maanaam lu positif rek la am am lu positif moo ko permettre nit mën koo def lu ne da mu daj coono bu nekk lu nekk lu nekk mu dund ko lu nekk mu jànkoonteeg moom lu nekk mu dégg ko dem ba liggéey boobu yegg bi mu yeggsee mu ni liggéey bi yegg na waaye lenn rek laa soxla mooy ñu àndandoo ñun ñëpp sant sunu boroom waaye lépp loo xam ni nit defoon na ko mu jëm ci sama kaw lépp loo xam ni nit waxoon na ko mu jëm ci sama kaw lépp loo xam ni nit liggéeyoon na ko mu jëm ci sama kaw jéggal naa ko jéggal naa seeni boroom jami alwara bàyyiwuma kenn yàlla maa ngi lay ñaan irham jamii al wara ndax màgg kenn ko am mooy yow yow rek la ñuy jublu di la di soxla yow rek la ñuy jublu di la di soxla yow yaa mën a xettale li ñuy wut yow rek yaa ko mën a maye man xaadimu rasul maa ngi lay ñaan yow yàlla ji jéggalal jaam yi yi nga am yëpp jéggalal jaam yi nga am yëpp ku def ku deful ak ku bax ak ku waxul ak ku daj coonoog ku dajul coonoog ku jéem ak ku jéemul li ma soxla ci yow te di la ko ñaan ci lii nga xamante ni may nga ma ko ndax dafa am barab yoo xam ni barabu ijaaba am waxtu yoo xam ni waxtu ijaaba la léeg nitu yàlla dina toll foo xamante ni day yëg ni fii mu toll lu wax suñ borom mu def ko nitu yàlla toll fa toll foo xam ni yëg ni fii nga toll loo wax yàlla mu def ko ginnaaw liggéeyal na yonent liggéey bu ni toll yëg ni yàlla yàlla nangu na liggéey bi mu yëg ni kon lu mu ñaan yàlla mu defal ko ko mu ne ko irham jal irham jamia alwara yaa man jalla al hawadin irham jamia alwara baalal mbooleem mbindeef yi amul istisna maanaam amul settee amul baalal kii bàyyil kii amul baalal ki kii bu ko baal mbooleem mbindeef yi baal leen waaye nag ñaan ko sama liggéey bii nga xamante ni moom laa sumbal yonti yàlla Muhammad maa ngi lay ñaan nga kartanal ma ba liggéey boobu fa ma ko bëgg a yóbbu ma yóbbu ko fa te fu fépp fu mu ko bëgg yóbbu liggéey ba yegg na fa ndax waxoon na moom Serigne Touba Xaadimu Rasuul ni sama dund gi sama dund gi yëpp maa ngi koy dépensé maa ngi ñaan yàlla ak yonent bi ñu may ma sama dund gépp nekk tagg yonti yàlla Muhammad te loolu wax na wax na ñaan na ko yont yàlla Muhammad te yëg na ni yont yàlla Muhammad nangu na ko parce que bu waxee yonent bi ni ko fii addu fii ba addunay tukki benn liggéey laa am mooy di la tagg waaw antal karimu annal qadimu dëhëral udimu fii ka sanaa'i wala udimu dëhër fii ka sanaa'i Sëriñ Tuubaa ni ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn rek am teddinge te yow la amul kenen koo xamante ni am na ko képp koo gis muy tedd ci sa teddinge gi yow Moustapha ci ko mosal ba moom muy seet kon antal karim man mii nag di la ko wax wa annal xatim man maay sa jëwrin bi nekk ci tool bi di xëye ko gont te yow rek nga tax antal karimu waaye wa annal xadim de man maay sa jëwrin bi nekk ci tool bi te xëyal la rek tax lenn rek laa bëgg te lenn rek laay def mooy di la tagg ba ba àddunay tukki di la tagg ba àddunay tukki sama dund gépp ba ba addunay tukki tagg la laay ci lay continuer yow mi nga xamante ni fekkewoo woo jamonoy Serigne Touba Khadim Rasoul yow mi nga xamante ni de yëg nga ni Serigne Touba ne ba addunay tukki Moustapha rek lay tagg nga jàpp ni suñu jëlee Khadim Rasoul def ci biir bàmmeel tagg ga fa lay yem déedéet la Khadim Rasoul waxoon mooy continuer te mooy ba addunay tukki moom rek lay tagg am na koo xam ni waxtu wi tembe mi ngi toog tey foo tourné yaa ngi dégg xasaayid yi nit ñaa ngi koy jàng foo tourné yaa ngi dégg kenn ku nekk ma ngay bàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ci mbind la koy jaarale gis nga fii nit a ngi toog di jël xasida teg ci kawam di jàng xasaayid ak bu mu mën a doon nga koy jàng jëm ci yonent bi xaadim rasul mi ngi tagg yonent yàlla muhammad ndax du say wax ay waxam ngay nettali kon ba léegi liggéey la mu ñaanoon te waxoon ko ba léegi loolooy dox mooy saa yu ñu xëyee saa yoo yeewoo foo toll yaa ngi dégg nit a ngi jël xasaayit mi ngi teg mi ngi tagg yonent bi loolu lépp maanaam mi ngi koy defal Serigne Touba Xaadimu Rasuul ndax loolu la ñaanoon yàlla ba adduna àddunay tukki benn métier rek laay am mooy tagg yonent yàlla Muhammad ndax métier moomu nga am yow Xaadimu Rasuul pour tagg yonente bi rek tax est-ce que loolu yàlla est-ce que loolu ëllëg am na am na maanaam am na lum la war a jariñ mu ni xay lim may jariñ mooy man Serigne Touba su yàlla dekkalee jaam ñi Moustapha dana ndamu ci am na koo xam ni dundam gépp ci man la ko dépensé di ma tagg waaye duma ca yam danaa fexe ba képp koo xamante ni loolu ma doon defal yont yàlla Muhammad yow bokk nga ci kuréel googa di ko def wala topp nga ci sama ginnaaw danaa fexe ba jàllale la ci poosu yont yàlla Muhammad mu dugal la biir aljanna te loola maanaam ñaan naa ko yonent bi nee na ñaan naa ko yonent bi ba yonent dagaan naa ko yonent bi ba yonent bi nangul na ma ko parce que yàlla bëgg yàlla du jox kenn te jaaro ci yont yàlla muhammad parce que chaise yont yàlla muhammad yont yàlla muhammad képp fa toog soo bëggee nag ci li yàlla yor faw nga jaar ci rasulillahi soo bëggee ci li yàlla yor faw nga dagaan ko yont yàlla muhammad ci waxin soo doon bind lettre sunu boroom te defoo ci timbre boo xam ni mooy Muhammadu Rasulillah yàlla du recevoir lettre ba mais pour yàlla recevoir sa lettre fawu timbre bi nekk yont yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax gisoo bu ñuy bàkk ba ñuy buy bàkk yàlla même buy teeral yonent bi lay teeralee buy bàkk yonent yàlla Muhammad toujours mi ngi mi ngi wan sunu borom ni lii may def yëpp yow ci yow laa jëm si waaye kii moo ma mën a jokkale looloo tax julli gi ci yonent bi di bari moo tax mu ni juróom benn weer julli ci yonent bi juróom benn weer tàgg yonent bi parce que amuma gisuma keneen koo xam ni mën na maa jariñ ku dul yonent yàlla Muhammad keneen koo xam ni mën na ma indil njariñ bu dul yont yàlla muhammad parce que li nu soxla ci wàllu xol li nu soxla ci wàllu yaram li nu soxla ci wàllu ruux li nu soxla yonent bi rek moo ñu ko mën a defal soo ko bëggee nag xam dayo bi muy def moom yont yàlla muhammad xam cër bi nga mën a jëlee ci yont yàlla muhammad xam li yont yàlla muhammad di la jariñ dafa am na xamante ni yàlla moo tànn ki gën ci nit ñi mu jox ko li gën ci li muy joxe mooy yont yàlla Muhammad yàllaa ko tànn mu gën ci nit ñi mu jox ko li gën ci li muy joxe muy alquran téere boobu yàlla Moustapha la ko jox yonent yëpp benn patron la am mooy Muhammadu Rasulillahi téere yëpp yàlla dajale leen ci biir alquran jël alquran jox yont yàlla Muhammad Serigne Touba ni ginnaaw yàlla. alquran ji mu jox yonti yàlla muhammad ci la ñu mën a jaar ba suñu xol nooy ci la ñu mën a jaar ba yegg ci yonti yàlla muhammad xaadim rasul jël alquran def ko wéttalam jël alquran def ko xaritam jël alquran def ko yitteem looloo tax mag ñi nettali nañu ni déeg bi nga xam ni fu mu ko mës fu mu mës ko mës a sampal ab néeg moom Serigne Touba bu dikkee lal ba ñu defar lal booba la téere ya la cay teg ci suuf lay tëdd lu tax mu ne parce que du nangu benn yoon di tëdd ci kaw lal di tiim ay di di di maanaam di tiim téereb yàlla bi beneen beet du nangu benn yoon di tëdd ci lu nooy téereb yàlla bi di tege ci lu wow ndax xam gu mu xam gëdd bi alquran am ak xam gu mu xam yitte bi alquran am ak xam bu mu xam <coughs> njariñ bi alquran am parce que xam na ni doomu aadama mënul am dara ci yàlla te jaarul ci alquran déggoo fële ma nga naan jaawartu bil furqaani rabbi al muayini malaktu nafsi wa zaxzaxtu laayin am nga xarit mu ni waawaaw am nga dëkkandoo mu ni waawaaw am nga àndandoo mu ni waawaaw ñu ni ko kan mooy sa xarit mu ni alquraan kuy sa dëkkandoo alquraan kuy sa àndandoo alquraan mooy la sayyidatuna Aïcha waxoon ba ñu laajee Aïcha lan mooy jikkoy yont yàlla Muhammad dañuy jikkoy Mustafa mooy alquraan buñ ko laajee lan mooy alquran mu ne alquran mooy jukko yonent bi lan mooy yonent bi mu ne yonent bi lan mooy jikko yonent bi mu ne jikko yonent bi mooy alquran Serigne seriñ ne am naa xarit ñu ne ko kan mooy sa xarit mu ne alquran ah. am na àndandoo kan mooy sa àndandoo mu ne alquran am naa mbok am naa dëkkandoo kan mooy sa dëkkandoo mu ne alquran waa léegi sa xarit bi ndax xarit day jariñ morom ma waaw xarit. day jariñ moroom ma képp ku am ànd xarit sa xarit dala war a jariñ bu fekkee dëgg la xarit day jariñ moroom ma su fekkee dëgg la am naa xarit am naa àndandoo sa xarit bi lum la jariñ mu ne lim ma jariñ mooy malaktu nafsi fexe na ba ma am indépendance fexe na ba ma ba ma maanaam ba sama dignité ma garder ko fexe na moom alquran ba ma am autonomie bi ma soxla fexe na ba moom alquran ba économiquement ma koy dundal fexe na moom alquran ba ma dund dund bu nëtëx bu tranquille malaktu nafsi li ma ci gën a yitteel nag mooy alquran a tax ma xeex sama bakkan alquran a tax sama bakkan yilifu ma alquran a tax ma am autonomie alquran a tax ma moom sama bopp alquran a tax ma am indépendance li mu li ma def yëpp su ma amul woon lii du ma ko mën a du ma ko mën a réaliser waaye moo tax mu ne malaktu nafsi beneen bi ci des mooy bi mu la indilee dara dàqal na la dara mu ne wa zaxzaxtul laayib moo ma indil li ma indil moom alquran mooy fexe na ba ma moom sama bopp fexe na ba ma am indépendance waaye xoolal ki ñëpp di daw alquran moo ma ko dàqal mu sori ma li ñëpp di ragal alquran moo ma ko dàqal jegewu ma mbugalum yàlla jegelu jegewuma lu lu naqari yàlla du ma def lu ko metti te lépp loo xamante ni day day day day day yóbbu nit ci mu tooñ boroomam wala day yóbbu nit ci mu bécci ngël li ko yàlla sant man xaadimu rasul alquran fexe na ba ma sori loolu sori naa rëbbum yàlla waaye sori naa ki yàlla rëbb sori naa rëbbum yàlla waaye sori naa ki yàlla rëbb ki yàlla rëbb mooy iblis rëbbum yàlla li def yàlla di ko rëbb mu ni sori naa ko ki yàlla rëbbi sori naa ko te loolu li ma ko may mooy dëkkaale gi ma dëkkaale ak alquran dëkkaale gi ma dëkkaale ak alquran loolu moo ma may ma am ma am ma autonomie bii ma am nangoo nañu ci mag mu wax ni maam Cerno moo ko nettali moom ni ko Sëriñ Tuubaa toog na bis parce que dañu ko laaj te laaj yooyu nee na maam Thierno mës na ko laaj sëriñ Touba Xaadimu Rasuul waaw daf ko mës a laaj ni ko ba ma la xamee ba léegi Mbàkke damaa gis ni lu weex rek ngay sol ba ma la xamee ba léegi Mbàkke damaa gis ni loo sol du am poos ba ma la xamee ba léegi Mbàkke damaa gis ni fu ñu la fekk doo yegg suuf waaw sa toogaay doo doo egg suuf benn yoon toujours da ngay mel ni kuy kuy waaj pour dem ne bi mu ko ko laajee ne Serigne Touba ni ko Thierno àdduna dey toogaay dafay xajul. ndax diggante judd war fi liggéeyal yàlla war fi liggéeyal yonent bi ak faatu diggante boobu ni mu xatee xaadim xalaatu fee toog ba yegg suuf mu ni at mu ni ko cerno adduna soo fi nekkee da ngay yor ji koy cantal mooy fuñ la fekk yaa ngi jatu balaa ñu naan hóob rek fekk nga départ mu ni ko beneen bi ci des cerno mu ni ko mbàkke mu ni ko xanaa yëgoon nit dina dugg biir bàmmeel lañ koy sange di xuloo ak moom wala di ko rëbb ndax musu ko musu ko fawe wala mu su ko tàmmal yaramam mu ne man nag damaa bëgg bis bu may bàyyeekoo fi di wuyu ji sunu borom li nu may booleel du ma rëbb te sama yaram dina ko miin sama yaram dina ko tàmm moo tax may sol lu weex fu ma toll ndax bëgg naa buñ may dugal ci bàmmeel sama yaram tàmm perkaal bi tàmm malekaan bi tàmm lu weex li ba mu ñoom ñaar du xuloo xoolal boobu xalaat mu ne ko beneen bi ci des li tax lu ma sol du am poos cerno mu ne ko mbàkk mu ne ko xaadim comme ginnaaw lépp loo xamante ni dafa ñëw ci xaadim rasul ci jaami yàlla yi la war a dem loolu moo tax soxlawuma yére bu am poos ndax yére bu am poos Cerno xamoon ni ku nay rek mooy ñëw yére bu am poos parce que nee na bu fekkente ni jot nga li nga war a dunde li ci des yëpp wërsëgu keneen la mooy li olof di wax ni soo waree dundee kopp yàlla jox la paan dala séddale loo su dee kopp mooy sa dund yàlla jox la paan yàlla dalaa séddaleloo waaye déggal mu ne ko maanaam lépp loo xamante ni ñëw na ci sama loxo rek dafa war a jàll moo tax du ma du ma ma du ma sol yére duma wut yére bu am poche beneen bi mu ni daf ko laaj daf ko laaj moom maam Thierno daf nee na dafa toog bi mu ko laajee laaj yi mu ni dañu toog ba mu ci ci bis bis ba mu yàgg am benn nit bu ñëw di ko seet moom Serigne Touba Xaadimu Rasuul waaye ne bi mu yegsee ci jàngal nit digganteem ak boroomam bi mu yegsee am ku mu àndal waaye ki mu àndal ubkatu làmbala la maanaam mbër la da daan bëre bi mu yegsee ñëw ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul pour mu ñaanal ko ne bi ñu yegsee mu déy ko ko maam Thierno déy ko Serigne bi ne sëriñ bi ni bëreet ni ko ana waa ji ne waa ji ni ko maa ngi nii mooy mbër mi ne mu jàpp ci loxoom di dox ak moom. di dox ak moom ba ca armeel ya ne mu ni ko sëppul fii xool ne mbër mi sëpp xool gis néew yi fa tëdd ay bàmmeel rek la gis ne Sëriñ Tuubaa ni ko nan nga def ak mbër mi daan ñii waaw nan nga def ak mbër mi daan ñii waaw na ni ko ni ko ñi ki daan ñii ndax yaa ngi koy bàyyi xel pour daan ko fexee la daan mbër mi daan ñii ginnaaw mënoo daan mbër mi daan ñii fexeel ba bu la mbër mi daan fekk la ci lu baax xoolal moomu njàngale parce que noo mën a toll ñaata ñaata maanaam ñaata mbër lañu def ci biir bàmbeel waxuma sax mbër yi àdduna waaye ñaata mbër seen digganteeg seen borom la ñu def ci biir bàmmeel ki daan ñooñu ki xam nga ni bàyyiwul kenn ki daan ñooñu xam nga ni bàyyiwul kenn ki daan ñooñu xam nga ni bàyyiwul kenn ne fi ñu toog am ku ñëw di ko jox am ku ñëw di ko jox benn benn benn am ku ñëw di ko jox benn benn ëmb ne ëmb bi nag poñatu àdduna yi yoo ci nekk ne mu téye ëmb bam ba mu yàgg mais bi mu ñëwee jub ko mu ne ko joxal diw maanaam nit a ngi toog joxal kee ne keneen ñëw yor benn lu mel ni enveloppe xaalis ci nekk jub si sëriñ bi mu ne ko joxal kee waaye nee na bi mu séenee ki yor kaamilu alquran bi dafa jóg gàttanu ko téye ci kaamil bi ne taf ci dënnam naan ko kitaabun karimun min karimin mukarramun téere bi dafa tedd jóge ci ku tedd ñu war koo teral muy alquranul karim kon dundam gépp mi ngi ko dépensé ci alquran dundam gépp mi ngi ko dépensé ci bàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dundam gépp mi ngi ko dépensé ci liggéeyal Muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam looloo ko may li mu doon ñaan yàlla yàlla defal ko ko mooy mu samp jumaa ji jumaa yàlla ji samp ko ci dëkkam bu tedd bi waaye def fi daara joo jabootam gi defal ko fi daara joo xam ni loo soxla ci xam-xam téere bu mu mën a doon boo demee fekk ko fa waaye defal ko fi université boo xam ni Serigne Mountakha Bachir dolli suturaam dolli fanam dolli wéram taxawal ko fi nga xamante ni mën nga faa jàng ba jot sa doctorat te doo te doo te doo seeti keneen te doo dem feneen yal nañu yàlla taas yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla aar leen bi jaahi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo nekkoon a génn nag fii ci Touba àndoon ak génn ci seen télévision bi di 2STV àndoon ak yéen ci seen télévision bi di 2STV am fii fii nga xamante ni mooy ci buntu jumaa ji teyit nag am na loo xamante ni réew mi yëpp dañ koy bàyyi xel ndax ay nit a ngi koy wax fu ñu toll kenn ku nekk di ko génne mel ni daa am loo ci namb te mooy nitu yàlla yi nga xam ni ñoo ngi leen di denc te ñuy fekk seen xabru yi ci biir jumaa yi te loolu nag am na lu ko waral ndax jëluñu benn nitu yàlla dugal ci biir jumaa waaye léeg-léeg ni jàkka yonent bi di mel di yokk di yokk mooy yokk ba dañ ci àndaatak ak sëñ Maxtaar mu indil ñu ci ay leeral bu ko defee nag ñu dellu siwaat te tàggatoo ak yéen bu ko defee ñu déglu sëñ Maxtaar incha allahu taala. Hmm, sama mbokk yi fii Gaynde gi dan naan jumaay Touba moog ar moog ba moog amee moog baax moog moog bu waroon bi ñoo ànd benn la loolu ñumte la. barab moo fi jiitu jumaa ji. jumaa ci nit fii jumaa ci nitoon fii jullukaay it bee ñu nekk jullukaay bi moo fal ñu nekkoon mm-hmm. waaye suñu mbàkk buso moo ne si munu soi moo ne nan ko féete la ginnaaw sëñ bi sëñ bi ji ndax imaam day jiitu mm-hmm. boo yëgee ci kaw man mm-hmm. ngaa wàcc nii dox nii barab bi beru ne jumaa ji beru nee laa ñu kon kon ñi koy ñuy wax loolu moom ñooy ñooy mag ñi ma wees na mag ñi ma mag ñi wees na wees na foofu daal waaw wees na waaw wees na waaw wees na foofu léegi barab bi nag te néew tamit nekku ne ku faatu xel fi de néew fi de ndax ay sët ñoo ngi fi mhm. ndax boo gisee mhm. barab sëñ Moustapha mhm. mu ngi fi mu ngi mag laal mu ngi mag laalewul dara mu ngi ne laalewul dara soro bee laalewul dara foofu am na si Mbàkke Madina monsieur Cheikh Gana mu kii ni kii ni ci xalifa boo yee barab sëñ Fallou da fekk ñett fi sëñ Moussa Dieng ak sëñ sëñ ne barab yi dañ ku nekk xalifa déedéet Euh, sëñ sëñ sëñ sëñ Ablaat moo nga ci daari kaamil ñu sama tilay mu mu nga guy mbinde soxna may mu ngi ci bund bi sëñ Soxna bu mu nga mu nga sëñ Basiiru mu ngi ci pencam soxna Faat Ja mu nga <laughs> saarika soxna mm, ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo ci almeri kon nekkut ne suñu daal doom yi ñoo nekk biir déedéet de jamono nag mooy dox. ngay gis mel waaye moom mag moom weesu nan di cëral seen bopp wala seen doom di bàyyi seen taalibe waaw bu ko defee moo kooku mu nekk Serigne euh, Makhtar nekk ci jumaa ji ñu ñaanal ko yàlla yàlla yàlla dëgëral ko ndax wax dëgg yàlla boo gisee liggéey bi Euh, seen seen seen daay bi daayira boobu di def nga xam ni ñoom la Serigne Saliou Mbacké dénkoon ñuy seytu jumaa ji ak ko wër ah dem ba yegg ci dugal benn def benn infirmier ci biir jumaa ji nga xamante ni ku tawat fa lañ lay faje ak yiñ ci def yëpp yëpp sëñ sëñ ñoo ngi lay ñaanal yàlla ak yombal gi ñu ñu yombalal waxtaan wi ba ñu mën a waxtaan ak ñoom ci anam bi ñu waxtaaneek ñoom yal na yàlla barkeel ci barkeentu bi salaay salaam sant bu baax ñaanal bu baax Serigne Moustapha Jatara nga xamante ni moom moo yor daaray kaamil nga xamante ni moom moo ne moom la ñu seqaloon waxtaan wi ci wàllu daara jooju nga xam ne moom lañ tuddee daaray kaamil xam ne lépp nga fa sëñ Moustapha Diatara ñu ñaanal ko bu baax yàlla yàlla defal ko yiw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yombal gi ak jàppandal gi ak xeeti xam-xam yi mu génne yëpp noonu la ñuy ñaanalee bu baax sëriñ Amdi Mbàkke nga xamante ni moom lëj na bi nga xamante ni ñoo yor wàllu baax bi nga xamante ni moo ne ci Touba ak li ko wër muy di gëstu xam-xam di ko dajale di fexe di ko wasaare jaam ñi di ci jot nga xam ni loo jëlee ci ñoom lu wér la sëriñ Amdi Mbàkke ñoo ngi koy ñaanal moom it bu baax a baax ñoo koy ñaanal baax a baax ci dalal gi ñoo ngi koy ñaanal baax ci waxtaan wi mu seq ñun moo xam bëgg-bëgg ak yéene yi ñu am yëpp yal na leen ko yàlla defal ci barkent bi sallallahu alayhi wasallam leen di wax nag tamit ni bu leen jóge fi ngeen toog dee leen xaar xaar leen Pape Sidi Fall mi ngi ñëw ànd ak alxaaji Moussa Sène ñoom nag wàllu màggal gi ci seen ñoom ñoo leen koy jox dinañ ko ànd ak yéen ba keroog màggal gi jeex li ci des dinañ ko ànd yéen ci journée bi waaye ñun fii lañ leen di tàggoo di leen wax ni màggalu jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yàlla nañu yàlla may ñu fekk déwén ak jàmm mu ànd ak sutura الله تعالى